kon euh, mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen baaluwaat ak di leen sargal ñëwaat ci ñaareelu xaaju seen émission wareef ñu am mbégte gu rëy ci thème bi nga xam ne ñu ngi ci ci jafe-jafe transport yi yi nga xam ne moo lëmbee réew mi ah ñu wax ci lu bëri ci semaine bi euh, dalal nag ki nga xam ne moo di euh, le directeur de la cellule de contrôle technique des véhicules automobiles monsieur Omar Thiam monsieur Omar Thiam ñu ngi lay nuyu defe naa yow miin nga wareef ndax ni ni daaw yaa ngi fi woon ak ñun waaye sargal nañ la ziyaar na la di la déwénu ci di la baalu àq bisimilah. Euh, jërëjëf Adja jërëjëf maa ngi di nuyu di leen sant parce que confiance xam naa ne am na parce que daaw ni ki daaw ngeen ma invité. dëgg la donc laaj na ma ñëw au moins def mhm. parce que boobu ñu ngi soog a démarrer presque. dëgg la nag dama bëgg a nuyu quelques personnes à commencer à féliciter. Mhm. Euh, sama ministre nga xam ko delloo fa mu nekkoon. dëgg la euh, yu yokkal ko sax si li ñu tuddee euh, nu bi. nga xam ne c'est un truc important. dëgg la te fekk na mu ciy jéego sax mais léegi dañ ko donc vraiment maa ngi koy féliciter. parce que jotagu ma di ko wax la cellule que je représente. Mm. dina ko a jàppale. dëgg la mu àgg la république dénk na ko. dëgg la balaa loolu tamit je maa ngi nuyu samay doom sama yaay ak sama doom ji nekk Italie Mame Diarra Thiam macha allah ak mook jëkkëram Dame Bey vraiment ñooñu c'est mes c'est mes te ñu ngi toog di seetaan te ñu ngi toog xam <laughs> <laughs> na solo am nga ko ndégg ni daaw yaa ngi fa woon waaye bëggoon naa ñu wax ginnaaw ci ne euh, de contrôle technique des véhicules automobiles mooy lan balaa ci question yi pour ñi ñuy déglu xam lu bees la lu ñëw ci réew mi defe naa benn la ci euh, ouest Afrique bi wala ah waaw wax ñu euh, waaw waaw cellule bi du centre bi dafa dafa nekk euh, loo xam ne lii bi état bi décidé euh, ne léegi dañuy dem ci contrôle technique mécaniser mhm. ñu ne naka lañ ko kii est-ce que dañuy continuer nam nekkoon ak des agents de l'État. Mhm. Euh, état bi na non léegi dañuy créer benn euh, def benn appel d'offre jox exploitation yi un privé loolu mooy centre de contrôle technique ñoom moom la ñu yoree juste l'exploitation ñu ne pour loolu tamit l'État nga xam ne moo ko yoree nga xam ne donc li ñu def noonu mooy des délégations de service public ñu jox ko nag euh, ay benn Veritas ñoo ko ñu jox leen ko ñu créer ce qu'on appelle donc l'OTS l'organe de tutelle et de surveillance loolu mooy CCT mooy complète et franche donc de la convention bi nga xam ne moom lañ am ak ñooñu nga xam ne moo ñu xaymaal. Mm. loolu état bi daf ko def pour def rupture. Mm. lan naan lii amoon na dañ daan euh, arrangé contre contre. Euh, ah, visite technique eh, loolu. soo ñëwee am koo fa xam. voilà aajowul sa oto bi yegg si. léegi man mii di wax bu ma sama oto bu ma ko jàllee dama damay dugg sama oto ñu jaar fa kii aw ma sax dugg fa. ay machine koy def ak wax ma machine sax ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné audité bu leen bëgg kii ñu dem xool ba xam li leen dénk ñu ngi koy jaarale yoon noonu la dem man ni mu fa benn ci lu surveiller mu li fa état bi seq ñoom lu ñu tey convention ak cahier des charges mm. ñu appliqué ko na ko état bi bëggee mm-hmm. mais pour def rek rupture. Mm. nit ñi xam ne donc contrat bu mënta nekk lu du sérieux mm. parce que ay tubaab la mm-hmm. ñoom seen intérêt mooy fixé nañ prix yi. Mm. fixé nañu organes yi contrôlé. Euh, par une convention nañ ko jaarale yoon. loolu mooy ñun suñu rôle na man maay représenté nag état foofu. Mm-hmm. pour l' complète et directe de cette. Euh, benn la ci Sénégal. benn Sénégal mais loolu mën nañ ci euh, weer yu néew dootul nekk benn. waaw weer yu néew dootul nekk kon loolu dañuy Omar. di ko mm. félicité. xam nga même jeeg bi togg ci biir kër gi. te mm. ñëw sëy si. Mm. kër ba mu wàccee ñu ne jël na njël mu jëkk. njël mu jëkk dégg nga woo waaye njël mu mujj ma nag. su egsee war naa tëj am néegam ne vérifié. ban palaate fi jaar njël mu mujj mi egg si. waaw vérifié li ma wax de. Ah, dégg rek laay def laaj su ma la déggul dootuma la déggati. mu <laughs> ngi bëgg yàgg. Euh, ni ko fi invité daaw yàlla nañ ko fi def déwén ak jàmm kenn bañ a. amiin yaa rabbal dantal ko mu xool lépp li fi jaar. Hmm. muy douze hmm. mois. Hmm. di at mi. dëgg mu ñëwaat. dëgg la. indiwaat leneen lu bees. kon na wees woon rafet na. dëgg la tubaarkàlla macha allah loolu la jàng di jëriñ. loolu la mooy tax am réew di dox. dëgg la dama wax sàng ni la. Macky sàll mi ngi ci li ko war. na mm. nit ñi seet seen bopp. Mm. mooy dëgg. Mm. Macky ci réew mi la dëkk. bu kenn nangu Macky gën la bu kenn nangu Macky gën laa defar. dëgg la kenn ko doon sa président bopp. dëgg la loolay doxalum néew. dëgg la laaj. borom kër lenn la man day witi dépasse. waaye kiy neexal kër gi mooy soxna si. dañ waxtaan rek ci dëgg diggan nañ defaraat jikko yi. te kenn ko doon sa président bopp boo génnee doon sa ambassadeur bopp. dëgg la. kon caam bu ñu la dénkee li ñu la dénk. Mm. te mooy tax oto normal. Mm. waaye balaa oto normal nit ki day normal. Mm. lañ la dénk nga jéem koo téye. ña nga ko dénk nga leen wisit. ba xam ci lañ la ñu nekk. dëgg la bu ñu nekkee ci yoon ba at mi dil si tey. Mm. am leen lu feeñ loo xay fudul foofu amu fa. Mm. mbaa boog dina bari waaye ci yoon lañ koy mën a teg. Mm. loolu la ñuy wax vérifier. dëgg la la nga dencoon. dëgg la xoola ba xam ma nga fa am déet. dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf Alaaji am na solo waaye euh, Omar Thiam euh, bëgg naa la laaj euh, accident yi bëri na. c'est ça coow li mooy accident yi. Mm-hmm. ma bëggoon xam nag euh, yan mesure le ministère bi jël concernant accident yu bëri yi lancé nañu may ma tuuti ak téléphone bi ndax tamit kilifa toog te baax nañu laaj ko waaw loolu dañ dama ci sawaroo tontu parce que loolu dafa nekk yitte boo xam ne mooy yitte premier au niveau du ministère mhm. bu ñu yew amul dañu créé créé ay commission yoo xam ne ministre bu ñu yewoo loolu la ñuy njëkk xool mhm. accident mhm. sauf que nag nun tamit mun ñu nekk ministère des accidents parce que liggéey bi yaatu na bari na mu ñu ko nekk mm-hmm. donc lii El Hadji wax ni tout à l'heure toll nañu fa xam ne fii mm-hmm. responsabilité ñi ñëpp mm-hmm la war a teg président mënu lu dul ne lii laa bëgg mu créé ko le 7 septembre mooy conseil sur la sécurité routière interministériel ñu xayma xayma lépp parce que euh, administration tamit noonu lay fonctionner bind xayma xool ne ah, lii buñ ko tegee peut-être askan wi dina Euh, dana euh, dana danañ ko aar ci accident. Mhm. loolu ñu ngi koy def suba bëccëg ngoon. Mhm. donc ñu ne léegi euh, accident yi lan la bëgguma ñu koy répéter à chaque fois parce que xam na ne nit ki la tali bi la oto bi la. Mhm. nun man ñu dénk ma oto yi. oto yi am na xalaat ci yeneen yu bari. ñu ne ma oto yi léegi. nii lañu bëgg mu mel. ñu comme nag ñu retard nun am retard foo xam ne Abidjan mi ngi ko nu ñu ngi soog a démarré. en mais jote nañu def nañ jéego yu mag pratiquement mën naa xam ne àgg nañ ci cinq ans dégg naa tout à l'heure ñu naan oto yi ñuy romb kii ñëpp parc Dakar bi deux cent cinquante cinq mille véhicules lañ ko lañ ko évalué mm-hmm. ñun deux cent cinquante cinq mille donc à Dakar mm-hmm. mooy DKTT ñu ñu commencé le juin boobu léegi def nañu cent quinze mille véhicules donc xam nga am na deux cent quarante mille yoo xam ne jaaruñu centre bi. oto yi yëpp jaaruñu centre bi. moom mm-hmm. ñooñu leen tuddee les réticents. Mm-hmm. te gouvernement bi mi ngi ciy def jéego yu mat yoo xam ne yi. Mm-hmm. Euh, en rapport parce que nag ministère nu transversal la c'est-à-dire il faut que ñun bu ñu tamit gendarmerie jël police jël douane jël. pour àgg foofu douane rek di fi ñu ñu double immatriculation génne nañ ko yoo xam oto yoo xam ne xamula sa da nga yeew rek ñu ne Adja Dégane sa oto bii de am na yooyu yëpp hmm? ñi ngi assainir ah non non mi ngi def loo xam ne loolu ñi ngi assainir les titres maanaam numéro bi ma yor am na keneen ku ko yor di ko du jeex ci dëkk bi te centre bi kese moo ci mën a taxaw tey nga parce que benn oto rek moo fa mën a jaar laaj kii su defee dégâts fu ñu koy jàppee ah, voilà hmm. te souvent nag dama leen kii ñooñu xamuñu sax pourquoi seen oto sax nekk double immatriculation donc duñ xam fan la jóge loolu lépp ministère bi daf ko teg di ko liggéey c'est vrai que peut être duñ communiquer comme ni mu na ci mm. euh, mm-hmm. nekk euh, man maa ngi ci xam ne li ma ci xam nga xam ne pratiquement euh, wax naa dëkkaguma fii sax mm-hmm. la politique de sanction mënu cee ñàkk il faut ñuy sanctionner mm-hmm. waaw bu ñu waxee wax a wax ba àgg ci wax ji te àgg mm-hmm. dañu war a sanctionner sanction nag mën na nekk pécuniaire mën na mm-hmm. nekk physique mm-hmm. mën na nekk lu mais il faut ñu sanctionner à un certain moment donné te def naa foofu lañu toll te man bëgg ñu tamit euh, jur doom pare di di caw mais toll nañ fa xam ne fii mënuñu bañ a sanctionner dëgg la dëgg la nun nag ni sanctionner au jour du centre ba mooy lii pour revenir sur ta première question sécurité routière loo xam ne lii ministère bi ma bokk de daf musu ko caaxaane ko woon tey la ko gën a bañ a caaxaan danaa lañ ci jox ñetti accompagne accompagner nañu. Mhm. Euh, utilisateur yi parce que dañu bëgg lépp rek ko ci euh, transporteurs yi non. Mhm. Mhm. transporteurs yi peut-être 20 pour cent lañu. yaa euh, dégg ngeen yaa El yaa Omar Thiam. ay particuliers ñeent portable yi dawal di doo takk ceinture par dañuy yab rek transporteurs yi indiscipline bi du ci transporteurs yi kese. depuis le premier août. circulaire baa ngi nii. centre xam nga dañu leen accompagner ñetti organe kese. ne la direction éclairage kii. wàññi valeur yëpp pour parce que lu bees la. mais depuis premier août jaar centre ba euh, du noonu. Mhm. lépp lañu xool ba ca photo ba ngay sa photo sëriñ ba ngay taf ca vitre ba dañ koy dindi. Mhm. boo ko dindi du am visite. da lay empêcher gis. ma la depuis le premier août. Mhm. premier euh, trois semaines. mesures yu bees dañuy génn yoo xam ne y' plus de points. dañ ci discuter nag syndicat yi le 27. suñu conseil d' administration wax leen toll nañ foo xam ne fii mënatuñu xaar quoi que soit. du tolérance zéro du tolérance kii tolérance zéro mën nañu ko wax dans bu ko président bëgg tolérance zéro nu ñoo fexe nañu fay àggee. Mm-hmm. wax na ko. Mm-hmm. waxu ko mais nun li jëm ci oto yi de. sécurité routière liñ ci teg. Mm-hmm. mooy que mënuñu jëxee suba jëlee leen fi parce que soxla nañ leen peut-être. mais il faut un minimum. frein. au moins direction éclairage. <laughs> jë ay essuie-glace ay pneu loolu lépp mënoo fa jaar sans faute amoo ko. Mm. démb rek sur les 749 yi fa jàll ndax défaut ndax amortisseur ndax pare-brise ndax euh, pneu ndax kii. ndax frein ak essuie-glace. Ah, ah, tout tout y a non aujourd'hui on applique pourtant nag ministre bi dafa appliquer juste le code la route. Mm-hmm. amul lu ñu ci wàññi amul lu ñu le strict minimum. ah oui oui lan naan def non non c'est que de la xam ne dafa génn code de la route. Mm-hmm. muy triangle li nga am na ko doon wax tout à l'heure avant ma ñëw plateau. Mm-hmm. ay triangle ki extincteur mais day sauver nit. Mm-hmm. te dafa war a nekk bagage. essuie-glace bu marché wul muy taw surtout taw yi marché day sauver nit. Euh, yooyu. lën warutul caaxaan déroulé sans lumière sans pour revenir ci El Hadj tout à l'heure ji du ministre moo koy wax du càmm moo koy wax cest à boo yewoo li ma wax rek souvent def naa na benn ci sama ministre Diallo ñoo ko doon wax def naa wala Thierno Alassane Sall ka ñuy salut mm. looy tàmm la yew suba ne damay brosse pour brosser tey dax boo ko tàmmee ne boo toogee rek takk sa ceinture man mënu génn sama kër ma ta boros sama mm-hmm. euh, samay bëñ mm-hmm. foo mu borose ko takk ceinture sax takk boo balaa may génn sama kër boros samay bëñ dëgg balaa may dem tukki dem ni comme ñaari rakk yi maa ngi yi am suba mm-hmm. maa ngi ñaan ñëpp ñu dem xool seen niveau xool seen balai de surglage xool seen pneu balaa ñuy dem ak pneu yu usé yi ñi ah, ñuy dawee loolu amul ko fay jaar depuis le premier août te amoo pneu normal alaaji camion yi pneu yu usé def accident yi ci réew voilà loolu nag mais ñu euh, kon statistiquement en un an. Hmm. création centre bi waxoon nga ni juin. 2012 12 juin 2012 voilà ñëw nañu passé nañu juin de disons un an statistique bi. voilà hmm. dinaa ci sawar parce que. Euh, yu le deux yu mujjee kii le deux mi ngi nii ah. hmm. c'est-à-dire que. def nañu donc un an. ba fi ñu toll nii tey. on est à à cent cinq mille. zéro euh, cent cinquante véhicules. ñoom lañ moom la ñu mooy immatriculation. mais def nañu cent quatre vingt cinq mille cent quatre vingt trois mille quatre cent quatre vingt onze visites techniques c'est-à-dire que loolu mooy yow sa oto dégg mën na ñëw deux trois fois mais immatriculation yi nga xam ne deux cent cinquante cinq mille à travers Dakar. rek ñoo jaar. moo tax liggéey bi des na.

donc bu amul lu ñu fi ragal. Mm. mais bu buñ ne rek ot gis oto bu jàng rek ñu la jaana centre bu mun ta nekk. Mm-hmm. dañu am liste boo xam ne bii. Mm-hmm. toutes les semaines vendredi. Mm-hmm. oto boo xam ne warul dafay jàng wala dafay kii bu fa jaaree. duñ ko dañ koy noté. téléphone adresse ad ci yónnee ministère ñu jàllale police gendarmerie loolu la ñu ko ah. commencé lépp mi ngi koy def. signalé ko pour ñu jàpp ko. effectivement mais loolu tamit. Mm. nun ministère mënu teg lépp ci askan wi noonu dafa diis. dëgg la ci ñu. accélérer le renouvellement du parc ci la nekk nii. boo xoolee ñu ngi monté 700 véhicules war nañu mi fi sax ci voyage. la nekk renouvellement car rapide yu bees ay euh, minibus minibus du car minibus yu bees. Hmm. ñu set pour dindi fi car ah non il faut ñu jël car bu màggat pour ñu jox la bu bees. loolu mooy renouvellement def nañu ci déjà 900 euh, 902. Hmm. véhicules jàll. fàttali ma tuuti ci lu gàtt parce que question yu bëri nu ñuy pour ñu déggul woon. oto waaw ni ñuy jëlee ki yor car bu bees ni ñuy jëlee ak ni ñuy parce que li ñu jël dañ koy détruire. exactement loolu dañuy créer euh, loolu CETUD ñoo créé ñoom ñoom la état bi jox ñu renouveler boobu léegi def nañu presque 1000 véhicules. Mm-hmm. mi ak 700 yi ñu monté tamit 1700. Mm-hmm. war naan ñu ànd ak ñoom ñu sax fan yu néew pour delluwaat Chine ak Inde pour xool yeneen matériel parce que dañu accélérer affaire bi. Mm-hmm. Euh, donc loolu. mooy dañu créer ce qu'on appelle laftu aftu mm-hmm. ñoom ñoo yore mooy yi nga ji ni tata yi ak kinglong mm-hmm, mm-hmm. ñoo ñu dañu am dañuy def ay regroupement GIE euh, ku si nekk sa GIE boo yore carap yi donc indi ñu ñu ko te léegi à l'époque carcasse la woon léegi il faut que sax carap yi am visite technique pour ñu jox la bu bees defuñu renforcement noonu renouvellement la def. te loolu ñu ngi ci. peut communication bi ñu ngi ciy war nañu def jéego yi mat lañ ci def. Mm. te ñu créé nag benn fonds revolving au ministère des finances boo xam ne bii mm. Mm. soxlaatuñ sax pratiquement financement extérieur pour renouveler le remboursement yi état bi ak banque mondiale dañ ko jox ñooñu ñoom CETUD ak euh, AFTU pour que bu ñu tollee un certain montant ñu dem wuti yeneen oto. toll nañ foofu. waaye daal ñu ngi def ay pour yii. Mhm. yii nii ñuy wane ci image bi daal na fi jóge. non dana fi jóge mais il faut ñu may ñu temps parce que loolu euh, xam nga. changement waaye daal joxe gum ngeen 700. ah no non non jox nañ mille mille sept cent pratiquement parce que sept cent ñu ngi leen di monter Thiès. jox nañ ci deux cent à Touba. Mhm. Euh, Touba ñu daw. Mhm. Euh, def nañ ci premier volet bi six cinq deux la woon. Mhm. ak euh, cinq cent deux la njëkk a renouvelé. defaat ci quatre cent quelque muy neuf cent. léegi sept cent ñu ngi leen yi daal jóge fi. voilà pour ñu ñu ñu fi daal. mais bëggoon naa la laaj. lu tax ngeen di limiter seen organe de contrôle yi ci centre boobu. au nombre de trois. voilà. dama jiitu mën na ëpp trois jiitu naa sax question mais loolu. Hmm. Euh, euh, mënuñu xëyoon suba rek tëb def ni Abidjan def Ouagadougou ñoo xam ne ñoom depuis 96 ñu ngi koy def. Hmm. dañu ñëw le 12 juin 2012. un an un an bu ñu ko defoon benn oto daw ci dëkk bi. te ni hmm. da leen soxla parce que bu la li may wax bu la 9h fekkee buntu Pikine ku la yóbbu yëmbal. ñu kii ñu accompagner depuis un an. dëgg la. donc loolu tamit il faut ñu bàyyi ci xel. ñett yan ngeen commencé ak ci fan euh, ngeen. voilà éclairage lañu commencé. frein ak direction mais li ma la wax depuis circulaire baa ngi nii depuis le premier août. Euh, depuis le premier août loolu jeex na. Mhm. depuis le premier août léegi da ngay ñëw. Mhm. lépp lañu ñu xool. Hmm? lu fa jé jéggi dayoo mooy suspension hmm. donc amortisseur. Hmm. li ñuy wax liaison sur sol. mooy bras de direction silam bloc. Euh, nga xam ne yooyu moo yor oto. kii barre stabilisatrice. pare-brise. essuie-glace. pneu. dañ ko xool mais di xool ko ci yoon ah. dañ ko xool ci machine yi xool ko ci ay machine tout. Ah, lépp kii loolu la daan def de. Mm. mais dañ ko daan def wan la ko. foofu daal mooy hôpitalu oto yi. oui oui la ñuy def. moom loolu la ma sa def nag. Mm. mais dañu defoon ne pour ñu accompagner laan yooyu. Mm. yenn yi ñu yi ñu jéem a réparer. mais gis nañu yu bari defuñu ko. da ngay def ñett yar ak jàll. ñu ne def nañ un an un an dafa xaw a waar. Mm-hmm. accident yi gën a multiplier métti bariwul sax noonu mais accident yi buy ñëw dafa métti di nga li tubaab di wax hmm. li may wax toujours hmm. tubaab bu génnee oto bu bees nii hmm. génnee benn par exemple une marque je veux pas am euh, efficacité freinage def naa noonu doyul dama ci dolli ABS anti blocking système système par exemple euh, xam nga kooku waxatuñ sax sécurité routière parce que ñoom dañu ne parce que ñoom ñoo ñu ëpp accident ñoom seen problème feneen la mooy vitesse alcool ak drogue. Euh, ak ak loolu mooy problème France ak ak pays kii. ñoom yemuñu rek ci frein efficace à 100 pour cent xam ne noonu ñaata leen laaj fii. efficacité 45 pour cent kese lañ leen laaj. kon fu mu ne nii laajte wu ñu 100 pour cent ci réew mi. non bu ñu ko laajoon yow mi sax pare doo daw man mii du ma daw. nga ne su doon 100 pour cent sama oto. du daw te kenn du daw parce que fii du ñu respecté alaaji moom dina daw moom. non non non parce que <laughs> alaaji sax du daw c'est pourquoi. Ah. parce que euh, xamante ñu baax mais mm. respecté carnet d'entretien moo amul ci dëkk bi. dëgg la oto da nga koy entretenir. dëgg la man mën naa ci wax parce que pendant 30 ans France loolu la ma sa def. dëgg la dëgg la entretien réparation. dëgg la entre. Euh, euh, entretien entretien loolu la ma sa def te loo gis ci àdduna bi muy route yi muy marché entretien li naan sax ngeen wax poto lampe yooyu mais état amul lu mu def ci poto lampe yi mm. raay de sécurité yi def ci autoroute yi mm. ñu wax état dana ko defar defar mais état fu defaree ñu yàq te ki yàq kenn du ko sanctionné dëgg la te dañ koy jël defee ko ay marmite waxuma la defee marmite sax mais buñ ko yàqee ki mm. ko yàq war nañ def constat mu fay ko mu réparé ko mais dañ ne dul gis charette la ñuy gars yi dégg naa dañuy def système comme su fekkee ne oto bi dafa paan ñu tegu foofu suñu gisul kenn siyee mm-hmm. affaire bi rail de sécurité autoroute jëlaale euh, lay évacuation boole ci lampe ba la ca biir dugal ko ci oto bi moo tax dana dañ parce que loolu tam ñu ngi ci avec le nouveau directeur des transports monsieur El Hadj euh, Wade mm. qu'on vient de nommer mm. dinañ ci jóg parce que même pour créer une brigade euh, routière on va le faire mënatuñu bàyyi loolu mu dem. brigade routière jot na ah non non jot na. ñu ngi cee xalaat te danañ ko teg. waaw directeur Omar Thiam dama lay laaj tuuti man. Hmm. Eh, ñu ñu xam ne day oto yu normal lu lii. Hmm. te nu mu mu ñoo jaar fi ngeen nekk bu ñu leen jàppee lan moo ci xalaat. loolu man question bu difficile la parce que li ñuy wax xam nga euh, yaay la solidarité gouvernementale lu wóor mooy moo tax ma la ñun yi fa jot a jaar sax ñoom mun ñoo jaal du leen sax jaar ci bàyyi. noonu hmm. dañ koy signalé moo tax ministre bi. war na euh, def na je pense que mi ngi initier ay courrier yoo xam ne il faut ñu rencontrer le ministère de la défense le ministère de de l'intérieur pour ñu gën a bàyyi xel ci loolu parce que yomb na léegi pour xam leen parce que euh, def nañ un an oto bu am DKTT war nga jaar centre ba macaron bi bu da nga ko gis mu verte jaune rouge drapeau Sénégal donc ñi ko yorul kay gis na leen ah ku ku jaar rek. day ah, am macaron ku fa jaar am nga macaron. alaaji léegi dinaa xool waaw xam nga xam nga euh, suba la ñaari rakk yi ndar yi ndegam yàlla dogal na ko. Mm-hmm. am na ci ñoo xam du ñu jaar mukk contrôle seen oto. c'est ça du frein ndax oto bu ko fi indi dee téye. ak caas ak caas ak dénk. <laughs> ak ak ak bërigo. Mm. war ngaa xam ne jaarul fu normal. Mm. dama ne bu ñu doon dem te yëpp mbooloo moo xam ne du jeex te ñoo ñu bëgg a dem rek. Mm. ba ñu jàpp leen lan moo ci yoon foofu laa laajee. ah mais lan moo ci yoon. lan jàpp bee gën a seetlu sax loolu mooy article. daa ah, la def yóbbu ay bakkan loolu mooy l' article de la xam euh, L 112 du code de la route. Mm. à tout moment le contrôle de de le contrôle de police et de gendarmerie peut s' exercer mën nga fa génn centre am contre am visite technique valable mais gendarmerie arrêté la pour une raison lu yoon may na ko ko. yoon may na ko ah, ji nga euh, les corps son unis mais ils peuvent être euh, ils peuvent se séparer en certain moment donné gendarmerie mën nga génn centre ba mu xool sa sa centre de sécurité ci nii wala ci naa ne la non def la kooku article L112 du code de la moo ko may mais mais mais mais jafe-jafe yi persiste na mais comme temps bi limité na bëggoon naa ñu laaj leen fausse vignette contrôle technique yi. Mhm. yi lëmbee réew mi yéen loolu lañ ci wax. waa loolu tamit mooy li ma doon wax rek ci organes yi kii mhm. c'est-à-dire que. Mhm. démb rek maa ngi ci dossier boo xam ne su yaa euh, un agent de Mbour laa boo xam ne bi moom daf dafa mel daf def ko def sa spécialité. chaque jour que jëfee ñun dañu am benn téléphone boo xam ne bii commissaire bu ko bëgg yore nga ko tey. boo boo dutee. boo ñu woowee ñu wax la ne oto bi jaar na fi wala jaar fi parce que noonu mm-hmm. dañu am benn logiciel boo xam bu ñu tàppee boo ñu joxee sa numéro plaque rek bu déggante tey mën naa la wax jaar na fa mm-hmm. nii la mel téléphone y a pas de problème mm-hmm. pour nous on a un service euh, spécial pour ça donc loolu ñi koy def duñ jege centre ba démantel nañ ci ñett wala ñeenti réseau par la gendarmerie de Anne avec le MDL Québec que je salue ba ñëw ba léegi jàpp nañ ci ci fausse vignette ci fausse vignette. ah jàpp. mais li ñu intéressé mooy c' pas le pauvre euh, wala la pauvre personne. wala cerveau ba ba. parce que souvent lañ ko jëndee ay 15000 te fekk boo ñëwee boo amee 7000 jàll. Hmm. mais day fekk nag peut nga wóolu sooto. Hmm. donc nun loolu. Euh, c' un travail de policier et de gendarme moo tax ñu leen di bi ma jógee nii Paris en mission dem xool euh, defaraat vignette yooyu. Hmm. indaale na ay ay matériel testament li moo tax mën leen ko yëgal hmm. nañu def attention hmm. léegi parce que dañu am ay appareils yoo xam ne yi hmm. police gendarmerie am nañ ko déjà buñ ko defee ci kii bi mën na leen a nax que ñun dañ ñoom dañ ko xam tuuti na baax ah, bi euh, ci euh, kii bi nii logo bi nii ah logo bi noonu def nañ ci loo xam ne wan ko wan ko caméra kon logo bi moo war a nekk ci oto bi euh, logo bi bu nekk moo war a nekk ci oto bi bu jaar centre ba waaw bu jaar bu ok ba ñuy trafiqué nag ba ñuy trafiqué moom bu ñu ci tegee lampe boobu ultraviolet ah. am na loo xam ne ñun def nañ ci loo xam ne hologramme ngeen ak police mm. Mm. ñoom dana bii foo mm. jarul sax ñu àgg foofu buñ ko laaj yi nga lii mooy PV bi PV bi dafay door te génn sa oto police dafa la koy laaj dafa am numéro de traçabilité bi nekk fii bi nekk fii ak bi nekk fii benn la te benn oto moo ko mën a am yéen ku fa jaar day am lii day am lii bi mooy PV am nga wala <laughs> yéen. naa ko kay. <laughs> <laughs> donc. mooy alaaji sama chapeau ma. ah waaw waaw ah. Ah, amee daal am nga. a yow am nga lii. am naa lii ndax am amee nag bu la police jàppee. Hmm. gendarmerie dafa la ko bu la ko laajee. amul parce que bii moom c'est inviolable PV bi. moom mooy kay bi mbind yooyu uh-huh. souvent bu ko jàpp jëpp mun danañ vérifier mais bu na laajee boo am na PV ñoo xam ne amuloo bu fausse foofu nga am ñu ci liggéey ay commissariat yu bari parcelle euh, avec Louis Fall que je salue commissariat ñu ci jógu baax vraiment man musuma euh, def naa fi presque trois ans mais c'est la première fois depuis un an ma gis une collaboration mm. c'est elle n'est pas encore totale parce que mm. information peut être jàllagul mm. de la police et Euh, pendant six mois ay trois cent cinquante en moyenne ñoo doon ñëw par jour. Mm. là c' est entre six cent cinquante et sept cent cinquante par jour. Mm. donc si am na fu mu réussir quelque part le contrôle de police et de gendarmerie dafa am effet. waaw la question clé aussi. Mhm. kañ ngeen di yóbbu centre bu mel nii ci région yi parce que quatorze régions. te fu mu Dakar ngeen ne. te auto Dakar ngay wax. oto ya ca région ya kon lii wax nañ ko élargir à quand mën naa je man mandat honorable mën naa mën naa mën naa wax ne man caam sama point faible loolu la mm-hmm. mais loolu dafa am lu ko waral mm. dañu nekk loo xam ne daf ñu dañu bëgg a jóge euh, jote mm. dans l' espace UEMOA parce que mm. centre bi nag teguñu ko d' abord c' est l' espace dañ ko exiger tous tous les huit pays dañu ma dem atelier Abidjan ñu may may ñu pour ñu jotee. Mm-hmm. il fallait que rapidement. Mm-hmm. ñu dem pendant un an léegi def na diagnostic bi. Mm-hmm. xam nañ li fa nekk lépp audit bi mi ngi soog a pare nii. xam nañ ne tey centre bi dañuy parce que centre pour créer xam bi on a quatre cinq pour le man en sept huit neuf mois je mets centre où je parce que am nañ expertise bi. Euh, am nañ moyens yi léegi. am nañ surtout quand je dis formation xale yi ay hmm. sénégalais kese la à 100 pour cent. Ah, ñoom ñoo fay liggéey amul benn toit bu fa juste xam naa eh, pour le contrôle. Hmm. ñoom ñoo gagné kii mais ay sénégalais fa nekk à 99 virgule 99. kon loo leen di xaar. li ñu xaar moo moo doon hmm. ñu xool.

bis boo déggee ne léegi ministre bi ne léegi jox naa euh, ndigal. Hmm. caam yóbbul ma santé dans les régions en neuf mois jëlee ma teg ko am nañ lépp pare. waaw mais wax nga moo bu am solo léegi da nga wax moo communication. Mm-hmm. te bu fàtte ni li lii yëpp ngay wax ni. Mm-hmm. ñu ci bëri ci sénégalais yi ñu ko xamul mooy communication bi dafa des. defe naa loolu ministre bi su koy dégg ministère bi mm-hmm. baax na seen euh, ngeen am euh, communication bu doy pour sénégalais yi xam liy rôlu centre bi. ak ñàkk fa jur jàkk ñàkk faa jaar mu lay jural. loolu yëpp baax na ñu xam ko aussi plan communication boobu am na solo. ndax yaa ngeen di ci xalaat. non loolu moom sax def naa ne euh, ñàkk benn gis la parce que centre bi bu fekkee ne am na structure buy communiquer bien au euh, au niveau du ministère c'est le centre. Mhm. ci succès bi 850 véhicules depuis le mois de décembre laay def par jour. ok donc am na effet quelque part. 850 véhicules par jour laay def par jour. waaw taxawal foofu tefal foofu sa baaram ko waxtu bi dab nañu léegi comme 850 ngay def par jour. Mhm. man mi nga xam ne dëkk naa Mariste encombrement ba am Mariste. ak désagrément ba riverain di wax parce que da ngay gis. c'est vrai da ngay jël par exemple autoroute bi di wàcc mhm. di dugg Mariste nga gis ay oto yu taxaw nga topp seen gannaaw defe dañuy avancer fekk dañu rang. Mhm. pour dugg ci centre bi dégg naa am na ñenn ñoo xam ne dañuy rang suba ba guddi. Hmm. donc loolu lan lan lan ngeen xalaat pour pour pour remédier. non loolu moom jeex na fa amoon na parce que c' am na ko def naa élage moo ko doon encore c' euh, affaire comportement. Mm. Mm. ñooñu bi ñu demee def un an. Mm. ñi nga xam ne ñoom dañu anticiper woon seen visite technique avant le euh, douze juin deux mille xamul nu mu demee yaakaar ne treize heures pare ñëw rek def fa phénomène rang cinq heures demi la ñu commencé suba loolu loolu man ma dem collaborer ak gendarmerie ñu jóge fa. maintenant tax na desul temps yi xaw na tane mais des na moo tax ñu jël ay mesures yu important yan mesures man de man ñor na ma. à partir du 15 septembre. Mm. peut-être sax demain la ñuy commencer test yi. Mm. dañu dama créé deux équipes. 7 mm. heures 4 13 euh, heures 13 heures donc dañ ko élargir. ñu ne loolu doyul ma ne leen léegi naka la ñu mën a def pour def une bonne répartition. dans la pendant cette tranche là de horaire. ñu ne nañ teg euh, euh, système appel. Euh, nu sax système euh, numéro loolu dañ ko teg en même temps donc mm. fi une semaine dix jours waa ñi ñi sélectionné mm. ña ngi def test yi mm. ce qui fait que ñun suñu problème mooy le matin dañu fàtte ne matin Anne Maris a élèves yu dem école ba y a le nouveau ministère de l'intérieur y a l'ISRA donc ñun bu ngeen ma may fii rek le nii rek ñun yaakaar nañ ne beneen oto du taxaw parce que dañu ko réparti ci journée bi. amaay porte parole waa Marie sonn nañu. voilà non non li ma wax nii. Mm. mesure bees la. Mm. yokk na tamit yokk naa yeneen ñaari piste ci biir. Mm. nga xam ne ay camions ñoo fa doon jaar léegi oto yi oto élage oto yoo mën na faa jaar. waaw mais xalaatu leen tamit ngeen jaaree euh, autoroute ba maanaam autoroute ba. comme mën nañ fa bëtt foofu àll rek la. foo ah, xam ne day dem directement. ci centre bi ku ñëw jàdd loolu terrain ancien gouvernement ba ñoo ko jël suñu ci direction des mines xam war naa ko xam déet. Mm. noonu moomu tuñ ko de loolu bu mu ko jotoon tey. Mm. jarul sax ñu tabax ñaari sax terrain ba terrain kan la. terrain fa la éducation santé nekk de. ah noonu ah, terrain ba amagul dara te ñun ay moom ko fa yi sax ña nga bu ñu ma ko joxoon tey hmm. soxla sax may dem jam ñaajo loolu laa la wax man maa toog ah. man ba gis nga étude bi nag maa la ko defal gratuit ah. maa romb ba xam ne fii suñ ko bëttoon mu dem directement santé ba du am benn problème loolu nag bu mu amoon terrain moom ko hmm. nga xam ne nu terrain nu ñoo ko ñoo ko yooyu ñoo ko moom hmm. ci direction des transports la bokk waaw ah mi ngi ci yéen a racheté leen ko loolu daal bu ñu ko delloo woon tey xamu nuñ ko amee nekk. loolu mooy solution bi bu ñu ko delloon tey. Ah. problème jeex na. lii daal man maa dem ba topp ko ba xam ne loolooy solution bi. parce que non mooy ci solution première la kay nun koy xay xayma nañ ci mais moomuñu ko. gis bi <laughs> kontaan nañu lool lool lool lool am mbégte di rappeler rek ne. Mhm. yow yaay directeur ru euh, cellule de contrôle technique. Mhm. des véhicules automobiles ba nekk Anne Maris lu bees mhm. loolu nga xam ne créé nañ ko y' a un def liggéey bu am solo boobu kon tàggul askan wi. Euh, maa leen di euh, jërëjëfal. di leen sant encore ci invitation bi. parce que vraiment il était question ma ñëw def un petit point. Euh, li waroon wax lépp sax peut waxuñu ko parce que sécurité routière ci dem lu ne mm-hmm. centre ba jarul ragal mm-hmm. centre boo ñëwee dana la wax sa euh, état oto bi yëpp ni mu demee mm-hmm. ngay fortaat di defar di kii ko yema rek ci chauffeur yi chauffeur yi ñoom kese di euh, transporteur yi ñëpp la yoyoo. dëgg la euh, mooy comme li ñuy wax rek euh, am na ko doon wax tout à l'heure mhm. ne circulation du oto bi kese. Mhm. piéton fi muy jaar war nañu ko seet. charrette bi fi muy jaar ko pousse pousse yi ñoo ñëpp dañu nekk yi bu ñu contrôlé tamit police war nañu contrôlé ñooñu piéton bi jaar fu mu war a jaar. yooyu yëpp dafa am mhm. mais vraiment maa ngi leen di ndokkeel. di leen gërëm ci euh, invitation bi. yow foo ma invité man lépp laay bàyyi fi toll dama waroon dem coordination privilégié de faire la faire vraiment euh, un point. ndeysaan ce qui est important. mais dinañ ci gën a dégg parce que li ma waroon wax lépp wax mu ko. dëgg la dëgg mais nuyoo soxna si ak kuréel ga. Ah, suñu fan si yooyu. dafa da nga am nag yow fans club fu ma demee pare naan mais yow uh-huh. sa xarit boobu uh-huh. mais vraiment nun dañuy def fans club moo ñoom day pend uh-huh. madame Diouf ñoom donc maam Diarra Thiam Italie nuyu a téyel ma nekk ci dëkk mi ngi fi jóge na il y a euh, euh, bu baax di la ñaan tamit yàlla di la ñaanal nga yeggali mission biñ la jox ak sa sago yàlla may ci ndam bu yaatu ah, jërëjëf dëgg xam nga li may faral di wax rek mooy euh, Omar damay faral wax di tegale bu dëngee ndab la jiitu la dëgg la alaaji Macky mënulul fal. dëgg la ki mu fal yàlla na xam li ko jox. lu mu dëgg la bu ko méritoo Macky du sonn Sénégal du sonn. dëgg la dëgg la dëgg la yàlla na yàlla defal jàmm. lancé na yegsi dëgg eh, di siyaar nag eh, Cheikh Sidiya Diaby. ndeysaan eh, sunu xarit ak soxnaam. waaw umu ak waa doom bitik. Mm-hmm. laama bitik. Mm-hmm. ak Yacine Ndaw yaayam. di siyaar baax nag Bis Fall. sunu xarit. laaj suba yaa nga mbu. suba maa nga mbu ah euh, incha di saar nag Ndeye Maguette Dieye député assemblée di ñaanal bu baax nag tubaarkàlla li ma koy faral di wax rek ajaratu Awa Gaye moom soxna asfalum Cheikh Ibra ak Serigne Mansour Niass di ko ñaanal bu baax di ñaanal nag bu baax dama koy wax euh, Thiam ni ko mhm. na wax ministère am mhm. li ministre de la santé defoon. dëgg la former communicateurs yi. fu ngeen munti dem ñu leen fa demal. dëgg la parce que nit munti dem fépp. dëgg la dëgg la suñ ko defee lépp àgg. dëgg la dëgg la kon euh, dëggan ñu ngi ñaan yàlla dem mbuur suba jàmm. Mm-hmm. Euh, yàlla na fa yàlla defal jàmm. ndeysaan laasana nuyu na la laasana day nit ku baax. ndeysaan ndeysaan day sunu doom di sunu xarit ak baab ka ñoom ñëpp. dëgg la yàlla na yàlla defal jàmm. amiin amiin alaaji <laughs> dañuy delluwaat rek fa tabaarakalla macha allah di ziyaat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi di sàkku ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu a ne yal na yàlla ñot di seen fan seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ca ñaari rakk yi suba ca Ndar di ziyaar Cheikh Sidi Makhtar di ñaanal taalibe yi ñu dem ak jàmm dellu seen jàmm yàlla bu benn accident am ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaji euh, di remercier bu baax a baax Walin Fall gis nga sànq mm. chapeau bi alaaji biñ ko teggee nii rek ngay def tegaat. Mhm. waaw prêt à l'emploi Waline Fall la reine du chapeau et du mooy jaar fii ñu ngi koy sargal bu baax a baax mu ngi ci cité Fadia di remercier aussi salon Déguène Chimère ndax xam nga coupe bi ñoom ko def nii perruque yeeg yooyu pour mhm. dir yanka yi soo demee tegg mhm. julli sooy génn rek teg waaw yooyu yëpp ay feem la daal Alaaji waaye tamit nag euh, di sargal bu baax a baax madame Soumaré Fatma Giro maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama doomu ndey boobu di nuyu tamit euh, ki nga xamante ne mooy Ndey Marie Papa Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ah Euh, madame euh, Nogay Sow Ka bu Fram ñu ngi koy nuyu waaye tamit nag Ndéla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Ndéla Ngom bu Sedima waaye mention spéciale Sophia Diop Sawjatu Diop rakk la ci soxna Mariam Koso Mbàkke sama doomu ndey sama xarit ak Kinushka ma ne ca Mbuur sargal nañu leen kon suba ñu ngi ci Mbuur ci kàttan yàlla man nag Omar Omar Omar ma ñawal ah. doomu Amath Bassène ak hmm. Fat Soog. ala jugal taxaw ma xool. ah bu ma taxawee këf tax ah, ma jaaral fii Omar. sax fi waaw parce que Omar moo ma eh, ah. ma defal lii defal koy defal koy Amadou nekk ci Guinée. ak Aji Ngom Omar Sène waaw jugal taxaw ñu xool modèle bi. Ah.